suñu mbokk internet bi yaa ngi ci Warkha TV soo bañee suñuy théâtre reportage divertissement wala actualité di la raw da ngay daal di abonné ci chaine bi daal di cliquer ci cloche de notification bi su ko defee nag daal di toog lépp lu ñu dugalee di nga njëkk see jot ndax Warkha TV mooy la chaîne qui nous rapproche salaamaaleykum suñu mbokk internet yi leen di ziar ci wéru koor gu comme ni ma leen ko waxee woon rek dañuy poursuivre lancer wu fruits énergétiques yi ndax ci wéru koor lañ nekk tey nag ma leen benn bi noisette moom benn fruit la boo xamante ne mën nga ko sax ci avaline fruit la consommer ci buy sèche wala ci fraîche moom mom, ma nga c'est disponible presque tout au long de l'année ndax l'importation. Mom amna ay ferñeent yu bari yu nek ci bi lu ci magnésium amna zinc amna phosphore amna calcium amna cuivre amna tamit lolu ñuy wowe provitamine A vitamine B1 2 3 5 6 9 amna tamit vitamine E ak vitamine C am acide gras monoinsaturé acide palmitique acide linoléique et acide alpha linoléique Mom nak mi ngi noonu ak ay ferñeentam yu bari sax bari na ay vitamine lool de len ko faral di jëfëndiko. mbokk yi noisette nag dafa ñew and ak ay ngëneel yu bëree bëri bëri lu ci melni mom c'est un antivieillissement ba pare day réduire le risque de maladie cardiovasculaire ak certains cancers ak tamit loolu ñuy woowee diabète moi noiset noisette ay ko en infusion diko faral di soulager les varices les troubles venins. tek ci tamit apaiser les affections de la peau tek ci tamit réguler ak di apaiser aussi la diarrhée. ba noppi tek ci tamit excellent sédatif la moom baax na ci ki amee hémorroïde ak tamit ki faral di amee ulcère mbokk yi noisette a ngi noonu ak ay ngëneelam joxati leen dig daje fii ci Warkha TV suba incha allah ak beneen firi war léegi bon ndogu